سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله ما ngi sant yalla tabarak wa taala di julli ci sangam bu tedd bi soppem bu mag bi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaan yalla yalla yok leer ak ngeurmande borom khatmiya ak katmiya maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ñaan yàlla yokk leer te tëbbuñu ci ay leeram sëriñ bi dëgg-dëgg borom mbóot yi dëgg-dëgg ki xam la yàlla dëgg-dëgg ki nga xam ne moom mooy xilaafal usma dëgg-dëgg di soppee rasulillahi di ndonoom muy moolaana cheikh lislaam alxaaji ibrahima Niass radiallahu anhu maa ngi sant yàlla ci fii ci Medina Baye waaye ci ron suñ kilifa sama kilifa suñ xalifa sama xalifa waaye suñ sëriñ sama sëriñ suñ baay bu tedd bu am yërëmande di sama baay turandoori seydina muhammadul maahi sallallahu alayhi wa sallama muy xaadimul ummati muy cheikh muhammadul maahi ibnu mawlana cheikh ibrahima Niass radiallahu anhu di jàkkaarloo ak mboolem soppe yëpp mboolem taalibi mawlana cheikh ibrahima Niass yëpp fii ci Sénégal ak ci Afrique ak ci àddina yëpp di sant yàlla di sant Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu di ko gërëm di ñaan yàlla gën ñoo yokk ay leeram moom Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu li waral nag waxtaan wi ak soppe yi mooy sant yàlla ci ndollal ndollalu Cheikh Ibrahima ndax mbir mi Cheikh Ibrahima rek la ndollalu Cheikh Ibrahima ci payam bii waaye ci jamiyatu ansaaru diin muy jamiya boo xam ne bu màgg màgg la fa yàlla yàlla kese rek moo ko tax a jóg ak yontu saa sama ak def lu baax ak xidmaal Cheikh Ibrahima xidmaal lislaam yàlla dogal sëriñ bi di xalifa bi di xaadimul umma ci mbaaxam ci xam-xamam bu jéggi dayoo waaye ci yaatal bu mu yaatal waaye ci fàtte bu mu dut fàtte jëf ju baax fàttewut kenn rakkam soppeem wëllëreem àndandooram ci baay muy sëriñ Mamoun Niass radiyallahu anhu gannaaw bu waxtaan amee démb moom xalifa bu tedd bi ak jaam bu xeebu bi di xaadimu saaxibul fayda ak suma baay bu tedd bi ku baax ki ku yaru ki waaye ki nga xamante ni nit yi dëgg la ak njub muy cheikh Mouhamadul Minhamin na cheikh Ibrahima Niass di président Ansaru Diin di jiite Mahad Alhaji Abdallah waxtaan seq nañu démb gannaaw tisbaar bu tedd ci ron xalifa bu tedd bi ci dogalu yàlla tabaaraka wa ak ci barke Cheikh Ibrahim ci mbaaxu sëriñ bi ak xam-xamam gannaaw bu mu dégloo sëñ mun xamit naa sëriñ bi dogal na joxe ndigal jox ma ma jiite ansaaru diin au niveau national muy loo xam ne nii waxuma ne pal la waaye ñaax la ak sonju ma maa ngi yéen soppe yi ci liggéeyal gën a liggéeyal Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu mi waxoon ne inna ladina xadamu ni naalu muraadum saadatan wa maalu képp ku ma xidmaal da nga jot sa càkkutéef ci alal gannaaw taxe àddina ak àllaaxira boo dundee da gis boo dee aljanna nga jëm ci liggéeyal gën a takkaayu ànd ak ful ak nag bàyyi maslaa yi mu ñeel Mawlana Cheikh Ibrahima mi nga xam ne mooy lépp mooy fépp mooy ñëpp it mooy ku tedd tedd ki mooy ki nga xam ne moo moo jaral liggéeyal képp ku ko liggéeyal doo ko rëccu fii ci àddina waaye doo ko rëccu ci àllaxira waaye nag dafa laaj sellal liggéey bii ñu koy oote bari nañ waaye dafa laaj sellal kon sëriñ bi lim santaane mooy Baye Mamoun gënal a la sellal gën a la takkaayu yéen ndaw yi yàgg naa leen a yaakaar mbir mi du yow rek yaag ñëpp la yaag say rakk la yaag doomi Cheikh Mamoun yi doomi Cheikh Mamoun nag ay doomi góor lañu ñu jigéen ay doomi maanaa la ak yu doomi dret waaye doomi Cheikh Mamoun tamit mooy doomi pays bi rek ndax Cheikh Mamoun bàyyi la doon liggéeyal ñëpp li fi nekkal kon daal sëriñ bi dogal na loolu wax na ne ànd na ci joxe na ci ndigal sant na sëriñ mun xamin Cheikh Ibrahima Niass mu def la ca war buñ paree ñu def délégation dem ci moom kon nag duma def lu may santaat sëriñ bi muy xalifa bi muy cheikh xaadimul umma firikati alquran bi mu cheikh Mahamadul Mahi cheikh Ibrahima Niass ndax ku sant nit doo sant yàlla am nañ mbégte waaye am nañ jaaxle mbégte lii mooy lan fekk na maa ngi liggéey ci komaaf fas yéene di ci liggéey nag ba ba may dee ndax komaaf mbir la moo xam ne ki ko samp samp ko ci doom ak dara dara Cheikh Mamoun mu Baye ka Baye waxoon ne ko laa tusxiluka xidmati ani dirasa yaa ngi may xidmaal waaye xidmaal bi nga may xidmaal bu mu la teree jàng yow Mouhamadul Mamoun ci kaw loolu la ko samp Cheikh Mamoun jaay ndoomam jëndee ko taalibe bi mu am seede bàyyi seedaloo ko sëñ Aliou Cissé seedaloo ko Cheikh Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop ak ñeneen am na leetar maa ngi ko yore waaye nag bi yàlla dafay mu jugee fii fi ma toog nii la xalifa bi toog Cheikh Ahmed Tidiane feddali loolu ñu nangu ko gëm ko fas yéene dee ci kon Komaaf moom nekk na loo xam ne maa ngi feddaliyaat sama kóllëre ci loolu ndax dañ ma ko mooñaalee feeg maa ngi dund incha allahu taala duma dañ di xidmal hadra bi ci lolu benen beneen nak dolé ko ci muy jité ansaruddin jité bobu nak moy nek khadimu ansaruddin rek moy nek khadimu talibé bàyyi moy nek khadimu l'islam waye nak ngir xidmal ki nga xamné mom rek moma jaral xidma muy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ki nga xamné tay kim jëm ci mom moy khalifa bu tedd bi am xam-xam lool am yar lool am ëddëb lool waaye am fit lool nag muy Cheikh Mahamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass kon ci gàttal la bàyyi nettali woon waa jooju ziyaara yontu bi sallallahu alayhi ne ko ziyaara nañ yonantu bi am nañ suñ càkkutéef ittahadal faro ma al asli loolu mooy am ci li nga xam ne mooy boole gi ma boole ansaaru diin ak komaaf muy benn te du ñaar ndax jëmm ju ne ju taxaw ju ne di doomu aadama ñaari tànk nga taxawee zaahir rek baatin moo fi nekk kon li ma fas yéene mooy sàkku ci sëriñ bi ñaan sàkku naa ko ci moom ci teewaayam waaye maa ngi koy sàkku ci fii ndax gëm naa ne mi ngi teew ànd ak man ndax taalibe bi bu dëggoo rek sa sëriñ a ngi ànd ak yow sàkku ko ci mbooleem doomi Cheikh Ibrahima yi sayid yi Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahima Niass nga xam ne moom mooy wakiilu daadin maa ngi koy ziyaara ci buntu cheikh Mouhamadul Mahi mi nga xam ne mooy xalifa bi di ko ñaanal yàlla di sàkku ci moom ñaan waaye ak mbooleem doomi Mawlana cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu di ñaanit ci imaamul akbar sayidi wa habibi cheikh Ahmed Tidiane ibnu baabul hadarati wa xalifatu cheikh Serigne Aliou Cissé radiallahu anhu maa ngi sàkku ci moom ñaan moom it di ko ñaanal yàlla di sàkku ci moom ñaan ci masuuliya bëri bi nga xam ne moo tegu ci suñ kaw ñun taalibe ma man de ndax man nekkuma man jaama bàyyi laa taalibe bàyyi laa surgaay bàyyi laa fii ci àddina bëkki néegam laa loolu sax xeeb naa ko su ma amoon lu gën a yéesu loolu njaam su xeebu si ñeel na Cheikh ma ci àddina ak àllaaxira ba tax na maa ngi sàkku ñaan ci moom di ko sàkku ci ay rakkam yu tedd waaye magam di ko sàkku tamit ci euh, Cheikh Mouhamadul Mahi ibnu Seyd Ali Cissé di nga xam ne mooy porte parole bi moom it maa ngi koy nuyu di ko ziyaar waaye di ko sàkku tamit ci mbooleem ñoom sëriñ Aliou Cissé radiyallahu anhu bàyyi moom waxoon loolu feeñu ma ma serigne Aliou mënu ma del wax ñom serigne Aliou Cissé radiyallahu allah kon mbollem ñi àndoon ak Baye serigne Aliou di Babul Hadrati Cheikh serigne bay ñess di ki ñëk xam yalla ma ngi sakku ñaan ci xalifaam Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh serigne bay ñess nga xamne ne Baye bi mbinde lettre ansaruddin bi dafa ne serigne bay ma maa leen bindoon lettre bi ngi ngeen soppali jamaatu ansaruddin waxe ko ci baat bo xamne baat boobu ben la jëm je ben la waye xolam bobu nga xamne mom bay leppam yunus bi sallallahu alaihi wasallam ben la cheikh serigne bay momu bay tudon khalifa maa koy talal loxo inshallah taala di sàkku ñaanam ak i xalaatam mook cheikh serigne bay ak kep kuy taalibe wala ngay muqaddam kadalika ni ko non kay tamit wa keur cheikh bay ma abdou ñang de nga njabooti cheikh madou bukar kadalika tam mbollem ñi andon ak bay cheikh ibra fall nga xamne ba faydu bi di feñat ci kosi mok bay la won boobu daanaka kenn ñewugut ba neneñ semaine bi mujjé nek ak bay biñu paré ci la faydu bi tak jabotam mu cheikh bay de nga libi bi koy tatane momit ak mbollem njabotam ak rakam cheikh bay zeynabu sama soppe ma ngi ca koosi ñoo bokk nek fofu njaboti cheikh omar touré xalifaam njaboti serigne ousmane ndiaye eh, ay satam ak domam Cheikh Baye Ndiaye xeebu ma ko mooy doom doomi Serigne Ousmane Ndiaye mi ngi fi am na doom am na mag moom ca Amerika nekk fa imam Ndiaye ñoom ñëpp maa ngi leen di tàllal loxo ak seen famille. fàttewuma kenn nag ci muqaddam yi àndoon ak Baye fàttewuma Cheikh Kabir Faye ma mujjee moom ci London waaye tamit Cheikh Hassan Dem radiyallahu anhu tukulóori Baye njabootam ak mboolem toppam sëriñ bi waaye nag ay magam yu tedd. ay rakkam yu tedd nangul ko dégg nga ni ki Cheikh Baye Mahmoud xalifaam di Cheikh Mahmoud ak seeni njaboot kadalika waa kër Alaaji Bakar yi waa kër sëñ Ousseynou Niass waa kër Alxaaji Mouhamad Zeynab waa kër Alaaji Ousmane Fati al imam waaye mbooleem ñi gàddaayoon ànd ak baay ñëpp ba ci Mauritania ba ci fu ne ci àddina bi ñëpp maa ngi fas yéene taataan nekk jëwri ni baay nekk seen xaadim ci baay ñoom ñëpp maa ngi leen talal loxo mbooleem muqaddam yi nga xam ne ñi ngi ci jamono fii ci ndakaaru ñëpp maa ngi leen tàllal loxo am nañu ci yàlla def ñu gën a fës ku mel ni cheikh euh, sang barhama ndiaye ku mel ni euh, cheikh mamour isa ku mel ni dégg nga cheikh sayid sall bu cerno Ibrahima Sall njabooti Cheikh Abdoul Wilane Baye Awalu waaye tamit ñoom Cheikh Aziz Ndiaye njabooti Cheikhul Xayri ak moom ci boppam ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi ci réew mi ku ma tudd ak ku ma tuddut man njaam ak njaam ak njaam si baay si maa ngi lay seddal ne waxtu yi moo xat rek waaye yàlla doy na ma seede yaa ngi sama xol maa ngi lay tàllal loxo képp ku am xalaat nag bu rafet bu gën bu sell yéen taalibe baay yëpp jaamu baay bi seen jaam ci jaamu baay mi ngi leen di tàllal loxo sama téléphone ubbeeku na sama jëmm ubbeeku na samay tànk kàttan bu ma yàlla jox fas naa ne dox jëm ci njaboot yi baay fu ñu mën na ne ci kaw suuf sama kemtalaay kàttan waaye tamit du ñàkk ñu dox jëm ci ci man ñu bokk dajee bu ñu yéexee ma gaaw ñëw jël seeni xalaat ñu bokk ànd Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma li mu bëgg mooy bennoo waatasimu bi xablillahi jamian wala tafarraqu li mu bëgg mooy genes bi taxaw ànd nekk benn bi nga xamee ne waxtaan nañ bokk na ci li mu wax ndax kilifa doo nettali waxam lépp te lépp lu baax la bokk na ci li wax mu ne am na mbégte ci jotaay bi waaye tam yàgg naa lii lu mu yàgg mébét la shabaab bi ñu booloo ànd boole doole yi boole lépp liggéey bi nekk benn maa ngi occasionné ci lii nag di gërëm rakam bu tedd mom khalifa bi muy president saroudin Ansaarud-Din muy cheikh mohammed munhamina ibnu Mawlana Cheikh ibrahim sallallahu anhu ci jikom yu kawe cheikh folé wuñ ko cheikh Mounhamina luñ ko cheikh munhamina mo dem ba gisal bopam ne tan na fété mahad bi ci lim netalé ci kanami serigne bi ma dégg ko te gëm naa ko ne dafa bëgg baye mamoun mi nga xamné ñi ngi liggéey ci komaaf mu seede ay seede yu rafet ñu bokkoon di liggéey nag ma ne naa bàyyee ko lépp mu gën a mën a yaatal liggéey bi te nga commence bi nga xam ne moom lañ ko jox mu di ci liggéey Ansaarud-Din doon ko xaw a jàppale ci wàllu finance wàcce naa ko lépp nag su ko defee mu mën a liggéey organisation pays bi jiite Ansaarud-Din sëriñ bi nangu loolu kon ci gàttal loolu mooy kàddu yi kàddu sant yàlla la kaddu ngërmande la maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp maa ngi ñaanal yàlla ñëpp beesal sama mbëggeel ak sama xidma ci Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu maa ngi sàkku ñaan ci sëriñ bi ak ci njaboot yi bàyyi gi yëpp ak mboole mboolem ñu dëkkee Medina ak xusuuri bàyyi la sëriñ bi waxoon radiyallahu taala anhu xusuuri Madina Chaamu Koosu wa Taybatun wa Kawlaxu qad taxya bi zikri alladi kamul sama njënd yi sama capital yi sama palais yi ku ne xam ne ne àddina taxu koo jóg waaye ba mu ko waxee rek la ko yàlla defal muy ay palais zaahir rek kuy palais batine muy Medina Saam Koosi Tayba mu ne Kawlax nag dana dund amaan na ci tudd ku mat ki te ku mat ki mooy yàlla maa ngi talal loxo waa Kawlax waa Saalum maa ngi talal loxo waa Sénégal yëpp maa ngi talal loxo mboolem waa Afrique diaspora bi taalibe Baay ak alam bi yëpp fu taalibe mën a nekk waaye nag maa ngi talal loxo tam képp kuy wax ashadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna ndax Cheikh Ibrahima nga cheikhul islam yi ñëpp la ñëpp la fi nekkul diine ji moo ko ñor xam-xam moo ko ñor li nga xam ne nag moom laa fas yéene awma lu may yokk dara ci li bàyyi doon ci ansaaru din ñaanu ma ko yàlla ñaan leen yàlla musal ma ci loolu maa képp ku ànd ak man di liggéey waaye tamit fasuma yéene wàññi ci daara it ndax sëriñ bi mu maanaam Cheikh Ibrahim lim tëralee rek noonu la lim wax noonu la samina wa ataana lim bind noonu la lim tëral ci ansaaru diin loolu laa bëgg a réaliser ni ko xalifa bi bëggee nag nga xam ne moo fi toog tey yàlla na toogaayam yàgg sëriñ Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim maa lay ñaanal yàlla yàlla la yàlla may tawfiq dolli ci lim la may yaakaar yi bàyyi nga nettali nañ ci xissa suñuy nopp ne ci jamonoy ndaw tawatoon na ba jaaxal nit ñi ña ko xamoon ba am lu ñu wax sëriñ bi ne waxuñ ma woon loolu ci moom def ci ittee dogu ci warul ko teg ko ci kawam kooku moo fi nekk ak ñun ba léegi yàlla mu ko fi bàyyi ba léegi yàlla na ko bàyyi ci lu ko soob moom yàlla may ko tawfiq moo ko ay rakkam yu tedd yi ak mbooleem njabooti bàyyi ak képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah lii daal mooy yenn kàddu taalibe su xeebu di xam xamle nag ne ñes gi bu mu nax wala mu réeral kenn ci sant bi ak du ma wax jiite gi ma jiite Ansaarudin waaye xidma bi ma yàlla may ma mën a fursa pour liggéeye ci Ansaarudin bi bàyyi rëddoon dégg nga dama fekk sama baay sama sëriñ Cheikh Mamoun Niass nettali na ma ko jëfee na ko bàyyi dëggal na ko seedal ko ay nit te moom jëf na ko bañ gis ko jaay ndoomam gi jëndee ko taali bi bàyyi nangul ko ko man tam jaayante naa ak sama baay di sama sëriñ dégg nga ñun ak ak maag samay rak ak sama soppe li ma seedeel sama bopp xam naa ko yàlla doy na seede ba man taalibe la kon ñes ki jaayoon nañ ko bu yàgg moomeel ak bàyyi la kon yéen taalibe maa ngi yéen taalibe laa place bi ma nekk nii tey yàlla indi ma fi maa ngi ciy sant yàlla ci commence bi ak ci ansaaru diin bi fas ini nag dénk ko yàlla tabaaraka taala waaw dogu naa ci sama sëriñ dénk naa ko yàlla ndax fi mu ne nii amatuma noflaay mhm. amatuma ay nelaw yu doy benn fursa bu may def lu may gën a farlu ci lii liggéey ci ba yàlla def lu ko soob ma dee maa ngi ni nuyu maa ngi leen sant maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di yàlla maa ngi tàllal ñëpp loxo waaye maa ngi ñaan yàlla martaba Cheikh Ibrahima ànd ak man ak yi maam ba nga xam ne liggéey bi dana am fu mu war a am ba bu mu am gàllankoor ba lépp lu ko xala gàllankoor ci yéene wala ci pas-pas wala ci pexe Cheikh Ibrahima martabaam na dox digganteem ak loolu ndax lii moom fullaak bàyyi gi laa ci bëgg a teg laa def ndax daan naa maslaa yu bëri nag eh, di nooy ci yu bëree bari bëri bëri surtout ci komaaf bi nag li may wax ñii xam xam nañ ko waaw waaye nag ëddëb rek laa doon jëfandikoo ak muñ yàlla indi na nii rek fi mu ne nag moom ah sëñ bi daf maa sas mm-hmm. sas sas boo xam ne nii tiit naa ci ndax yonent sallallahu alayhi wa sallam bi Huud euh, wa axwaatuhaa wàccee bi ñu ko laajee li tax nga xam ne moo tax nga bee jaaw mu ne euh, aaya yi wàcc foofu ak saar yooyu moom moo ma tiitloo ba damaa dama dama damaa bee jaaw waaw kon nag responsable boo xam ne bàyyi lay liggéeyal sëriñ bi bàyyi lay liggéeyal bàyyi lañ koy xoolee mooy bàyyi mooy Cheikh Mahi Ibrahima Niass kon nañ xool bàyyi ci moom nañ gëm bàyyi ci moom maa ngi tàllal loxo ñëpp ci ñu jopp bokk liggéey di xam ne nag ne ansaaru diin bi ni ko bàyyi bëggee woon rek man foofu laa yem loolu laay wax ñi fi jiitu nag doon ci liggéey ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. aleykum Cheikh Mouhamed na Cheikh Ibrahim ak magam bu baax bu tedd sama papa di Cheikh Mahamadul Qurayshi Cheikh Ibrahima ñu ngi fàttali ko jamono yi mu ko yoree góorgóorlu na ci taxaw na ci macha allah kadalika ni ko tam oustaz Ibrahim Mahmoud Diop El Marja maa ngi koy fàttaliku ci toogaay bii ma toog li ma nekk nekk nekk ndaw ci jamono yooyu waxambaane mbaa nekk ca mag fàttaliku naa taxawaayam ba bi may màggee fekk mu yore ansaaru diin maa ngi fàttaliku tam Cheikh Mamoun Ibrahima Niass nga xam ne moom it liggéey na ci ansaaru diin waaye itam maa ngi ñaanal Cheikh Mouhamadou Lamine bi nga xam ne moom la serigne bi defone muy jité Ansaarud-Din au niveau international de nga batay mu yore ko kon ma ngi ci ronam ma ngi ci ron Cheikh Mouhamadou Lamine ma ñëpp ñu ñëpp ñi ci ronu khalifa bi Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh ibrahim Niass khadimul umma ma ngi koy ziyaara ma ngi ziyaara samay rakk samay doomi bay dale ko ci Cheikh ibrahim Mahi dale ko ci top ci Cheikh Mouhamadul mustafa ak Cheikh Abdallah samay mbokk yu bax day borom xam-xam waye seeni rak ñom ñëpp maa ngi leen di nuyu Cheikh Khalifa Cheikh Hamidou ñoom ñëpp Cheikh Khani ak Cheikh Makki ak ñu ma teewluwut seen tur ak seen mag Seyda faatima saara ak Seyda Aïcha yàlla moo leen cëralee loolu ñu gën ñoo jege ci deret sëriñ bi waaye nag maa ngi ñoom ñoo ko bokk ak yéen maa ngi leen di tàllal loxo ci lii ak képp kuy xaasiya ku nekk ak sëriñ bi leen wax ne farlu gi ma farlu ci lii farloog bàyyi la na ma ñëpp jàppale fas naa ne jël xalaati ñëpp pour liggéeyal sëriñ bi maa ngi woo tamit mboolem sëti bàyyi mboolem njabooti maam alxaaji abdallah ndax yëf yi dafa yaatu loolu moo koy yaatal ci liggéey bi nga xam ne ci laa nekk bokk ko yéen ak ñu ma ci fekk ñëpp maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñoom ñi ngi jëm tey ba ngeseen juddug Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu Cheikh Ibrahim mi nga xam ne mooy leeru leer yi Cheikh Ibrahim mi nga xam ne moo xam la yàlla juddoo Tayba feeñee Koosi sanc Medina toj àddina bi ci laa ilaha illallah mooy toj xol yi Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon nañ leen sax ci yoonu Baay nañ leen fàttaliku ragal yàlla nañ leen fàttaliku li pays bi bëgg li xalifa bi bëgg te mooy xam-xam ak njub ak ñu am wërsëg Cheikh Mahi visionnaire la Cheikh Mahi Ibrahima Niass savant la waxin la ci ñi mën a dégg savant waaye Cheikh Mahi Ibrahima Niass wëllu yàlla la bàyyi ko wax boobu xëy na moo gën a wér ci yi ma wax yëpp ndax bàyyi moo waxal boppam ne ñaan naa leen yéen samay doom lu jiitu ngeen ñëw ca xay bu ngeen di ay wëllu yàlla kon ku ne wëllu yàlla war nga mën a doon lu nekk kon daal ñu ngi koy ñaanal gudd fan ak wér diko ñaanal tawfiq diko ñaanal eh, teysir diko ñaanal barke diko sakku ci mom loolu mo doon kaddu yi ma ngi dello sama bop di lo ñepp ci ragal yalla ak mandu waye nak ci bëgg cheikh ibrahim niass ak xidmaal ko gannaaw loolu nak presse bi nga xamni ñoy al fayda ci njital omar wagn di coordinateur bi ñi fi tew ñepp ak ñi utu ma ngi ñaanal yalla di rafetlu seen taxaway ñu di len talalat loxo bu ëpp bu ma leen tàllaloon ci liggéey bii di ko tàllal tam ñi nga xam ne mooy euh, euh, dégg nga euh, Cheikh Ibrahima géey muy Alfayda fii ci Medina Baye rajo ak Alfayda waaye di ko tàllal loxo tam presse Sénégal sénégalais yëpp fii ci Kaolack ci dakaar di ko tàllal loxo àdduna bi yëpp ci buntu bëgg liggéeyal Baye. maa ngi gërëm maa ngi sant maa ngi ñaan yàlla saxal jàmm ci Medina. ak bi ñu ko dëkkee. Mm-hmm. maa ngi def appel nag jëmee ko ci ooteeb Cheikh Ibrahim bi mu oote ci ansaaru diin waaye ci làmminu ak ci bunt ak ci ayeeb yàlla na yàgg xilaaf ak Cheikh Mahi Ibrahima Niass di oowaat sama bopp di oowaat mboolem taalibe yi ñu gën a jàpp ci ansaaru diin ni ko bàyyi bëggee woon mboolem ñi adhéré wutoon tam maa ngi leen di tàllal loxo fas nañu yéene facilité leen yoon wi ñu ciy oo ñëpp ñu bokk teg ko ci yoon xalaataat ansaaru diin xoolaat ko indi coppite yu bees yoo xam ne dafay dëppoog bëgg-bëggi xalifa bi ci kaw bëgg-bëgg Cheikh ibrahim bi nga xamne bëgg-bëgg yàlla la wa akhiru dawana an alhamdulilahi rabbil alamina xaadimu saahibul fayda muy bay Mamoun ness di président komaf di président Ansaru di jamu Cheikh ibrahim ness wa salam alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن ñu